internet yi ñu topp ci Dakar live maa leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar mbégte la jàkkaarloog yéen comme ni ñu koy defee saa su ne alors man mbégte la amaat dalalaat suñu père Lamine Ndiaye ngeen xàmmee ko ci kàddu am solo yi bu ñu ko dalalee ci moment yi yaakaar naa ni kenn du laaj lu tax xam ngeen actualité politique ni ki suba ñu war a amal élection présidentielle fii ci diwaanu Sénégal père Lamine Ndiaye bu Pastef maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay leen jox seen wàccuwaay euh, jox joxit wàccuwaayu Pastef ki may njëkk ci nuyu bi nag muy sëñ Muntaxa nga xam ni su ma ko tuddee rek tudd naa kër yëpp nañ ma ko baal nag ci dëgg-dëgg waaye sama wasila foofu la nekk ndax euh, sëñ Cheikhouna Mbacké bu sëñ Baara mooy sama wasila kon nag lépp loo xam ne nii maa ngi koy def damay jiital ku mag ku màgg ki ku mag ki sëñ Touba sëñ Muntaxa ba pare soog ko ci teg bu ma ko waxee nag njaboot gi yëpp ñu féetee foofu maa ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen sargal nuyu leen vraiment bëgg ci ñoom parce que ñaan yi mu may ñaanal euh, boole ci yeneen kër yi këru diine yi tamit ndax fépp la fa la la farme parce que Sénégal la en quelque sorte donc bu ma dee Sénégal damay wasaare nuyoo boobu yëpp waaye fa mu tënk mooy ki mu njëkk a lim sëñ Touba sëñ donc foofu laa sësu euh, ma di leen déglu euh, ba yeneen ton waa laaj yi ñëw incha allah loo leen bëgg rek laaj leen ma ko am na solo alors euh, balaa ñoo ñëw ci euh, tëjub campagne bi euh, ci bracelet bi nga takk nii laay ñëw parce que wax nañu ni jamono ji lépp lu jëm ci wàllu propagande tere nañ ko ndax élection yi léegi tey ñu dem voté ji ay heure moo ci des nga takk bracelet Pastef en ce moment te ñu te ñu tere ko lan lan moo ko war a est-ce que du ñu ne da nga jalgati yoon li nga xam ne tere nañ ko. jalgatiwu ba yoon mais kii sama ngañ ñi laa ko tudde sama ngañ ñi mooy sama yoon nekku ci damay def li ma neex waaw ba neex la ci man loolu kay wolof bi la te firi na ko hmm. dañ ko daan tere man kenn mënu ma ko tere te bu doon sax ci jamono jooju ma defaat ko hmm. waaw waaw. léegi ñu vote ji bureau de vote léegi mu ubbi incha allah nga takk bracelet bi est-ce que booy dem da nga koy koy takk wala. danaa ko dugal sama poos bu ko ba foofu la ñuy tere ma bañ koo def su ma génnee nag. ma takkat ko sama kii def ko nii ci jëbi front front bombé xam nga dañ ni wax poitrine bombé mais front bombé laa koy def nii solo comme ni ñu ko waxee dañu ñu avancé euh, daal di dem nag euh, ci li nga xamante ni euh, moom moo di tëjum campagne bi gis nañu Ousmane Sonko ak Diomaye fay ñu tëjee ko ca diwaañu Mbour gis nañu public bi nga xamante ni moo leen fekk ji la fa xew ca stade ba ak la xew ca biti alors balaa ñoo ñëw ci soxnaay Diomaye noo jàngati tey public bi démb ni ñu wuy see Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moom mooy njiital Pastef jamono ji muy Diomaye fay xam nga système bi nekk ci diggante Diomaye ak Sonko moom la ni ñu comprendre waaye man mi toog fii doon wax ni révolution douce lay def boobu xamoon naa ko te révolution douce boobu dañ dem ba ci kanam ñii dinañ comprendre pourquoi ma ni révolution douce parce que dañ ko singali woon di ko def yoo xam ne yëfu baadoola la dañ ko ko doon def di ko teg di ko jéem a toroxal yàlla jox ko xool bi xalaat bi ak euh, xel mi yëpp tàggat ko ba nga xam ne nii lu nekk la mënoon a dékku asamaan si sax su doon wàcc dana ko dékku njàmbareem googu dafa neex Sénégal parce que dinañ xool cosaanu Sénégal lan moo indi woon euh, j'avais un texte Lat Dior bu ñu tuddee pièce bi le refus donc lui il a refusé jusqu'au bout il a refusé jusqu'au la wax leen ci moom refus boobu mu doon def njëriñ li xam nga man dama ko doon misaal ci taw dama ni dafay tepp teppal donc fine pluie la ko tubaab bi tuddee may leen xaar leen mu wis bay taw pour man ba léegi tawagul ca kanam Sonko dina taw. kon ba nii dara amagul. waaye dama ni lii xew ñëwagul bu ñu jógee ci vote yi dem ba ca kanam kanam danañ xam comprendre waaw waaw non déjà pourquoi ñu Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko loolu sax créé na benn. suma jigéen boo xam ne nii je respecte vraiment son père qui m'avait donné beaucoup de respect xamu naka Ngom xaw ma. Babacar Ngom waaw kay. def na benn attitude boo xam ne nii te ñun ci homme de théâtre waru ko woon def muy Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko mais c'est quoi je n'arrive pas à comprendre attitude boobu bu ko amee ba wax loolu ñun dafa am fu ñu koy féetale non non par respect moom dikkaguma ci yooyu tekki hmm. waaw. mais daf ko déranger. waaw mais mais mais elle a perdu tellement de secondes et de minutes mm-hmm. tellement de secondes et de minutes nous ce qu'on veut et ce qu'on voulait li mu commencé di wax programme mu wékku ci ñu xam ne fulla la ko defee parce que du ma critiquer ni mu defee campagne am elle est la seule boo xam ne nii. j'ai vraiment apprécié sa façon de faire sa campagne intellectuellement la ko jëfe parce que zéro faute laa koy wax moo ci gën la campagne mais foofu rek man laa d'accordul ak moom. wala lim leen xëpp xëpp ngeen tiit. non xëpp. Ah, parce que nee na euh, bu fekkee jomaay euh, moytuwul ak yi ni mel dina ko delloowaat kaso ba mu jóge. xëpp xam kuñ koy def ragal est-ce que ko ragal na. Sonko li mu dékku mais euh, la dam Ngom euh, à la place de Sonko nga xam kon wax du ko def wax du ko def mais loolu bu doon man mu ñëw ñu waxtaan avant muy wax loolu mu xam ni fa jëm ci loolu wax jooju dana ko indi euh, su ma ko digalul pour mu waxee ko neneen wala mu bañ ko fo tudd sax danaa ko wax dama ni moom déjà dafa opposé wul ak euh, Sonko xam nga kan la opposé euh, kan la opposé ndey mbil gi nga xam ne nii da def lu ko neex te gorewul ndeyu mbil gi xam nga ki may bëgg a wax du ma tudd turam parce que. président Macky Sall nga waaw dafa doyle ci Sénégal man ku doyle ci Sénégal ma doyle ci yow kaddu googu mu wax waru ko wax. lan la wax. le Sénégal lui a tout donné directeur d'une société ñu jóge foofu mu nekk lan ministre ñu jóge foofu mu nekk président de l'Assemblée nationale ñu jóge foofu mu nekk premier ministre ñu jóge foofu tey mu nekk président de la République. ba nii muy demee def di douze ans douze ans ñu ne ko déet na waay Sénégal dañ ko jox fay xaalis xaalis boobu mu toppatoo ci njabootam ay doomu yëpp dañu jàng ba ni ar fan lañu jàngee aux États-Unis bi mu paree ci yooyu États-Unis mu tam doom yi am jom am fula euh, euh, jël seen parchemin vraiment euh, je les encourage yal na leen yàlla ubbil loo xam ne kii waaye ñu bari nuru seen baay hmm. voilà ah, ci jikko ci ah, jikko. ak lim fi def waaye yow doo ma bàyyi yow lan la fi def. Ah, mooy meilleur président. lim fi def yëpp est-ce que lekk la. Hmm. je te yow li nga wax naan lim fi def. BRT bi ci côté transport. yooyu bu ko fi bàyyi woon ay projet loo xam ne nii dañ ko commencé. Hmm. plan yaa ngi fi. xam nañ ko ko commencé bàyyi ko fi. mu ñëw mottali ko xam ne yii plan la il en a profité euh, pour lan euh, xam ne nit ñi wax ko ne que voilà il a bien fait il a bien fait moo tax aussi tamit bi mu ci am loo xam ne daf ko naqari amul lu mu waxul ses ministres ses compagnons ñi nga xam ne nii ils ont lutté ils ont tout fait pour lui waaw mais xaw na leen saaga sax mer pourquoi muy mer yow boo rombee Sénégal lu nekk defal nan la ko yëkkati koppar gu bëri jox la ko. ngay defal bay defal nit ñi di ko génne di ko wasaare yóbbaale xaalisu jàmbur boo wax ni def la ko may kooku ki mu wax ni moo ko may def ko daf ko daf ko weddi mais na wax ci loolu. ah wax la ñu dégg de. Ah. ko mayoon xaalis. dëkk bi lu neex waay mu wax te dara du ko ci fek yow xam nga li may wax ñi fi wax ay kii 94 milliards yi ñuy wax nañ ko firi. tooxi doon am mani buñ ko firi woon ñu tooxi doon am li tax ñu gaawantu def euh, loi bi ñu euh, voté te à l'Assemblée nationale waa amnistie bi pour kan la si Sonko l'a pas demandé déglu rek détenu yi laajuñ ko détinu détenu ban détenu moo ko laaj na wax bëri danaan nañ libéré suñuy doom ak euh, soxnay Sonko yi génnoon nañ libéré Ousmane Sonko est-ce que loolu ñi doon wax nañ libéré suñu doom dafa fekk ni doom yooyu de defuñu loolu leen di jàppee ba di leen dugal kaso. mais dafa am leen tuumal. lan leen tuumal ana firnde yi sàcc yi nga xam ne ñoom jàppoon nañ leen dugal leen ci biir kaso bi ñoom dañu sàcc waaye ñoom ñooñu gos yooyu ay ñoo xam ne nii dañ la yónni ngay ñëw ñu daan la dugal acca foo jege nga wax ni dama jënd woon mburu ñu daan ne doodoo dugal fii mburu maa ngi ci biir euh, camion bi am na koo xam ne nii dafa génn ci boutique dafa jëndi woon lu mu soxla parce que lekkul woon ñëw di romb ñu ne ko nii dugal ci pañe bi waaw ana ñooñu seen PV yi te ñu doon wax naan ay euh, ay lan lañu ay euh, waaw force occulte waaw parce que man yooyu vraiment dafa bokkul ci sama langage ba nga xam ne nii il m'est difficile de retenir ça parce que mosu ko xam fii Sénégal. d'accord mais ñi ki nga xam ne moom mooy ministre de l'intérieur moom wax na ministre de la justice comme ni ma ko mën a waxee moom nee na mayuñu leen liberté définitive mais dañ leen may liberté provisoire après dañ leen di toppaat ci yoon parce que ñoom ñëpp ku ci nekk sa der sa. argaay mi xaalat ma làkk lu tukulóor boo xamul. je la respecte beaucoup, cette dame. Je dis dame, elle n'est pas une femme, mais c'est une dame. C'est une Aïssata Tall Sall. Aïssata Tall Sall. moom mën naa jaar ci turam. respect bi ma ko jox billahi wallahi taalahi jox ma ko benn jigéen fii ci Sénégal. ba pare mu def loo xam ne nii et c'est vraiment approché de mon métier. nekk actrice jouer dans un film que j'ai vu j'ai revu apprécié ko ci. jox ko wàccuwaayam gannaaw loolu mu leen defal ba mu doon wax c'était Macky wallahi moom ci defam rek boo seetaanee film bi mu joué joué ci rôle avocat ci nga koy gën xam ni lii mu def wóor na ma wóor yàlla ni bu jullee ak jul jul bu mënti doon mi ngi rëccu bay wax di ci baalu eh, yàlla àq waxloo ko loo xamante di jouer rôle lu sikkim gestu moo koy yóbbaale mais en réalité c'est pas elle Aïssata bi ma xam Aïssata Tall Sall bi ma xam c'est pas elle. balaa maa ñëw ci Karim Wade mi ñu wax ni dafa rejoindre ak euh, papam bi nga xam ne ñi ngi wax que ni jamono ji mi ngi fii ci diwaanu Sénégal euh, gis nañu présentation bi nga xamante ni Jomaay euh, Fay def na ko am ñu ne Jomaay communication dafa des am ñenn ñoo xam ne dañu ne amul compétence pour jiite réew bu mel ni Sénégal ak ni mu bindoo ak doomu adama yi nga xam ne la yàlla suñu borom wàccee est-ce que Jomaay am na potentiel pour jiite réew bu mel ni Sénégal rawatina ci moment bi nga xam ne dañu ne jeunesse bi dañu yeewu euh, moment yi. ñàkk xam jomay moo indi werante yooyu ci moom parce que jomaay su fekkee ne woon xamoon nañ ko ci njëlbéen ba pare nag dayoo nekkul ci bind xam nga comme il est quelque fois loolu day jouer donc euh, ñoom dañu yaakaar ni il faut nga fees am kii non am maqaama ak dayoo nekkul ci bind bind leneen la waaye li nekk ci bopp bi moom la ñu soxla ci moom te kenn du wax ni jàngul soo demee ba nga xam ne nii yow da ngay former ay magistra ci sa njàng sa cursus kon buñ la xeebee rek ñoo ngi def erreur Diomaye dafa nekk koo xam ne homme d'action la mais soo ko bàyyee mu jiital ko mu wax rek bu nañ ko wax lu ne parce que loolu la mëneewul mais bu dee rek koo xam ne ni dafa am Pastef ak dogute ci liggéeyam joxal Jomaay foofu la ñuy waxee Jomaay mooy Sonko Sonko mooy Jomaay li ci des yàlla moo la koy jox loolu nag yàlla mëtaliwul lenn ci mbindam xoolal ki nga xam ne moo ñu jiite rek toll woon na ay jamono yoo xam ne nii fuñ ko tuddee nga fay bor li tax ñu voteel ko deux mandats parce que gëm ko bëgg ko ci lam ñu doon wax waaw mais man gëm ko bëgg boobu voteeloon naa ko de à deux reprises euh, tey rëccu naa ko su ma xamoon ni fii lay mujjee man Sénégal boo ko weddee rek weddi naa la. président Macky Sall mujj foo xam ne nag vraiment Père Lamine euh, wax dëgg neex yàlla mën nga ñu ko wax quand parce que président Macky Sall nu mu mënti demee am na loo xam ne def na ko ci ci réew mi li mu fi li mu fi jot a euh, liggéey li mu fi jot a defal askan wi tey boo nee rëccu euh, jàpp naa ni ñu bëri dinañ xalaat lan nga war a rëccu ci moom lan la def loo xamante ni vraiment yow daal yaa ngi koy xool ni da nga ko rëccu. dafa mëtelul la mu taxoon nit ñi fonkoon ko bëggoon ko ba votel ko bu ñu xamoon ne nii lay mujjee billaahi dogu naa ne kenn du ko votel ni mu defee yow kay loolu jarul lereel dafa dina jàppale yaa ngi ci presse bi xam nga lépp li xaw nit ko amul yërmande topp nit ba mu indil ko tooxi doona yii lu mu dugg lii mu ko ci dugal ak suxlukat yu mag yi nga xam ne naa féq lañu ànd ak moom defeel nii kii daf la bëgg a yàpp seetlu ko boo ko moytuwul ci sa kaw lay mujj dem nañ ba tiital ko nga xam ne nii bu tëddee sax du nelaw mu boole ci nag man tooñ ma parce que nag dëgg la sama président la war naa ko jox respect mais nag na fàttaliku ne man maa ko mag yaa ngi dégg ba ma koy xam weexewul woon nii ma toppoon ci moom projet boobu je ne cesserai de répéter ça wax naa ko plusieurs reprises su ma ko doolee sax xëy na day gën a forox mais na tooy ba forox xasaw xun j'avais un projet avec sama jigéen sama sœur koo xam ne dama ko fonk moom mu jël ma ma porté projet bi mu bindu jox ma ma jël euh, mbind ba euh, moom mu recevoir ñu invité ñu euh, benn déjeuner au palais de la république ñu dem artistes yu bari daje fa muy wër di nuyoo di nuyoo di wax di laaj ñu koy wax ba mu yegsi ci man mu jox ma loxo ma jox ko jox ko fay ko nuyoom alors man ko président man day excellence sa ko wax man ko man day sama soxla ci yow mënuma ko wax fii su doon sama sago danañ am beneen jotaay mënuma loo bëgg beneen jotaay bi xam nga audience la man ko waaw boobu maa ngi xalaat sama sœur boobu nga xam ne nii bëggoon na vraiment la mu bindoon ma yàggale ko alors mune ne ma waaw kon li ñuy def danaa la jël audience mu woo kenn ci eh, ñu toogoon fale ci table ji doon ko xool mu ñëw mu ne ko jël numéro am après suma ma ba ñëw dinaa ko woo un projet boo xam ni c'était des milliards. billahi wallahi talahi kooku ñeme naa ko waat te dem naa màkk ba ñëw du ma nangu kenn tilimal sama kaala loolu laa ko ba léegi. ndax buñ ko waxoon te ñu ñoo ngi yore woon ay partenaire mu déggoon ko ma ànd ak sama sœur ñu toog mu recevoir ñu sama sœur moo yore aspect technique bi moom xam na ko kon xale yi ñàkk liggéey yëpp doon nañ liggéey te fépp fu am ndox ci Sénégal danañ ko fa def te loolu bu jukkee ko woon xale yi jël gaal yi dem di dee ci géej gi billaahi duñ dem wala bu benn gaal demee ñu si des duñ dem muk ndax dinañ toog kooku kitaabu naa ko loolu ma naqe dog moo tax chaque fois bu ma déggee benn gaal ñu ne dem na suux na ay mille personnes ay deux mille personnes ay cinq cent six cent on ne peut pas euh, compter le nombre d'enfants le nombre de jeunes qui sont mères euh, qui sont morts dans la mer te loolu daf ma kii woon te ba pare moom def cay am xaalis parce que partenaires yi dañu waxtaan ak ñoom ba ñoom ñëpp ñu d'accord projet bi bi ko Ablaye Wade déggee en son temps moom la woon mais séance yi ñu dem dafa kii dafa dem ba boole ñu benn agence bu mu créé woon ka fa nekkoon doon jiite agence bi moom gisoon te woon nañu moom ba waxtaan. ba kooku proposé ñu une somme dañ ci d'accordul loon parce que euh, li ñu bëggoon da dul woon sotti ak loolu mu ñu proposé woon ma bëggoon moom sœur bi dem fa pour gisantoog moom expliquer ko mu xam xaalis bi ñu soxla pour dugal ko fa donc loolu mujjewul am donc euh, je suis au regret vraiment kiiwul parce que mu gi li mu ci teg moom a gën a naqari parce que dañ ma daan invité grande mosquée prière muy korité di tabaski xoolal li bam ñu ko waxee neel une une fois ba moo waxee loolu si présidence dem na ba ñëw woote sax defuñ ma ko yàlla na ko ñu mu daje korité ma dem julli ju foofu bon comme tout le monde font euh, tout donc bu ñu jullee ba kii même suñu su la yoralul àq ci diggante jullit ak moroomam vraiment da ngeen di ballonte àq nga xam ko ñàkk ko ba a xam gis naa nit ñi di ko nuyoo di ko gërëm di ko sant man ma ñëw après ko dof ma xool rek ne ma comment lamin man ko woy excellence loolu laa ko mos a wooyee mu ne ma comment gars yi woowaguñ la ba léegi man ko déedéet neel ñaar. deux mois et demi tabaski ñëw il me redit la même chose neel trois ñu dem ba at ba daal di wees correcté daal di ñëwaat dab ko neel quatre après deux mois et demi encore tabaski ñëw neel cinq yooyu yëpp il m'a il m'a toujours répété la même chose comment gaañu woowaguñ la ba léegi ma ne ko déedéet excellence mu woowaat keneen na ko jëlaat numéro cinq fois ça suffit largement moo tax ba ñu dabalee at ba korite ñëwaat dewuma sax julli ci yàlla defal ma ci wërsëg woo xam ne nii bu am solo ra mu fekk ma màkk fa laa en fait je veux dire tabaski bi ba mu ñëwee quoi mu fekk ma màkk fa laa julli ma sant ci yàlla bu baax donc korité boobu nga xam ni mooy mooy jiitu toujours avant tabaski ba dawuma foofu julli ji de sama kër gi laa jule jiite sama njaboot toog na pot du moom moom moom julli bi parce que yàlla moom moom julli bi mais bañ ko ruusloo muy dajawaat ak man di ma wax ne ma gaañ yi est-ce que woowaguñ la ba léegi encore parce que c'est la même salade loolu laa ko doon bañal parce que nag nit ki doo ko topp topp topp topp ba mu sës da koy tegal gàcce man loolu moo am suma digganteeg moom moo tax ma mere ko loolu mu ko mere deuxième mere bi mooy li mu wax barki de boo njaay doyul naa sëkk ci Sénégal kon man kay doyal sëkk ci moom man mi nga xam ne wax na te ko. Mm-hmm. kàddu yi nga xam ne jàpp moo tegginewul ci sama man sama gis-gis. na solo euh, déclaré na patrimoine am moom euh, Bassirou Diomaye Faye li mu jot am ci koppar li mu jot am ci alal sénégalais yi ne euh, Bassirou Diomaye Faye nekkoon impôt et domaine waroon a mën a yor ay koppar tey mu déclaré li mu jot am ci tool ak bor yi nga xam ne yoreel na ko yenn ci ay banque ngir mën a amal li nga xam ne moom mooy campagne am ndax bett na la tey euh, li mu déclaré que ni loolu la am ci alal laata euh, peut-être ñuy dem ci li nga xam ne moom mooy vote. mais loolu bu naqaree gaañi kay na ko ñeneen ñi def rek topp ko hmm. waaw dalee ko gun ci euh, Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko c'est quoi même suy lan je ne comprends pas yooyu ñoom nañ def yooyu seetuñu ñooñu ñuy seet Diomaye <laughs> lu leen joomaay def bañ koy set yooyu koy yoon la doxal déclaration de patrimoine da koy def avant ngay eh, jël nguur waaw moo foofu lay gën a am maana mm-hmm. ne ko ñeneen ñu toppandoo rek jeex na mm-hmm. mooy tontu bi waay waay xam nga fii moom c'est la république de l'interprétation ma yooyu du ma ci tardé sama bopp ku neex lu ko neex mu wax mm-hmm. ku mu neex lu ko neex mu wax eh, sama wax ji sama wax tey nañ ci deg leneen waaye man xam nga je suis un no mind waaw moo tax ñuy liggéey ci impôt ak yi ni mel dañuy am xaalis wala peut-être dinañ am ay milliards comme ni ñu ko mën a waxee mais bu ñu déggee Bassirou Diomaye fay li mu jot a wax ni moom la am ci koppar ñu bëri dañu ne euh, réellement bu fekkee loolu moo am est-ce que Bassirou Diomaye fay bokk na ci ñi nga xamante ni peut-être ñi ngi doon nduxum euh, foofu ci impôt yi doon. xaaral xool fii ba xam. sama lumière bi daf may xamal. lan la xamal. parce hmm. que du jomaay lu mu def. Hmm. waaw ak Sonko. nee ñoom ñaar ñëpp set wecc weex tàll lañ def. ñoo bokk jikko. loolu ma sama bracelet yi wax hmm. waaw. bii tàkk bi mooy Sonko bii mooy Jomaay. mais est-ce que moo tax sénégalais naan wàpp euh, ñu baal ma ci kàddu gi ñenn ñi ñu faree ci Pastef dañu mel na ñu amee feebaru xel parce que dañuy jàkkaarloog bracelet sax euh, di leen ziyaara ak ni mel. ma noppal na leen ñoom seen wax man day dégguloo non maayin xam nga maayin mooy lan mm-hmm. sama xel bàyyiwu ma ko sax ci ñoom leen neex ñu wax gis nga fii c'est la république de l'interprétation nu mu leen neex ñu wax dañ ciy bàkkaar rek parce que nit ki boo ko xamul dañ ko woowee ee moo gën di ko dëkkal foo xam ne nii dañ fàttaliku ne yàlla li mu sàkk mu gënul ko ci li mu sàkk yëpp den den la muy doomu aadama léegi nag nañ wax dem yàlla li mu sàkk moo ko <laughs> moom la màggal noonu te ñoom ñuy woo seen bopp ay jullit nañ ma dëkkal fu leen neex rek Sonko euh, grandeur bi mu àndal parce que dañuy wax ni c'est la première fois ci histoire du Sénégal euh, ñu ne benn opposant bu mag am na ñu voilà ñu waaw ñu ñu fexeel ko euh, ba tëj ko gi ni mu nangu deuxième am topp ci ginnaawam grandeur boobu mu mu àndal pour yow lan nga jàpp que ni peut-être moo tax Ousmane Sonko tey nangul ki nga xam ni moom mooy Diomaye Faye ngir ma porter projet Pastef yàlla la àndal man ba ma koy xam xam naa xel nit kii suñ borom la àndal te mu ngi jours ci wetam seetal lañ ko def yëpp buñ ko defoon keneen kon sotti na démb boobu tey di ko may muy muñ rek wekku ci yàlla xam ni yàlla dong moo mën ci moom dara kon donc day féetal boppam ci yàlla bool ci la ma gën a neex saa yu ñu ko tëjee wala ñu sonal ko mu génn alxuraanam di ko jàng loolu mu lay won na la kii il est fort mentalement croyance bi mu am sa dépasse l'entendement c'est ce que le président de la République n'a pas compris donc il s'est fatigué pour un rien il s'est fatigué pour rien et pour rien ano mi ngi nii dafa daf ko génne mu jege mais Sonko ne l'a pas demandé ñi ñeme yàlla nag wax nañ ne à ah, le protocole de ah waxtaan am na moom bi mu génnee wax na ko ne buwul bu gis nga soo neexul woon du ma la tuddal neex-neex tontuma <laughs> di nga xam ne maa léegi du saf-sap xam nga yow yaa ngi nii cappa cappal ba ba neex <laughs> da ngay def yu boobu <laughs> kenn la eh, bokk neex neex la rek <laughs> yo neex neex bi la neex moo la saf loolu nga def jàkkaarloog man man màgget na màgget naa su xool c'est un vieux moi mhm. waaw mais soixante-dix ans passé naa ko mhm. waaw mais jikko ji xol bi moo dul nangu ku ñuy noot mm-hmm. waaw parce que dafa am kàddu ma jàngate loolu vraiment en toute sincérité mi sama dënn dama ko gëm lool bu njëkk ba ñun ay doomu révolutionnaire la ñu woon ma jàng ci lu bari di liggéey di liggéey te liggéey faywul la ci war dafa mel ni nekk ni mu jaam kon ku dul jaam war a sànni sa jumtuwaay ngir ñàq suy tuuru te di sang keneen ku dul borom jël fit takk fite fa sës ndax ku ñuy noot te sa digg gannaaw neex ka ci dëju boo fudduwul ci sa jug mukk kon nag wequ ngir kuy bëgg a dee wequ may naa la lool. d'accord am na solo euh, Bassirou Diomaye présenté nañu ñaari soxnaam ñaari jabaram <laughs> lu ci sa yoon. wax nañu ne euh, Anna Diamanka fi mu toll nii dafa mel ni ñoom ñaar seen diggante neexatul am na ñu ne sax divorce am na jamono ji diggante waaw diggante Ousmane Sonko ak Anna jamanka te boobu jamono Sonko ngay présenté ñaari jabar yi Bassirou Diomaye fay Diamanka nga wax de. Anna de nee ma nga France. waaw jigéen du jàmbaar la. bi mu bi mu làmboo. moo wane jàmbaar ji. Ah, divorce bi ñuy wax ci digganteem ak Ousmane Sonko. fii c'est la république de l'interprétation yow boo gëmee loolu xayrun ah, est-ce que médias yi dinañ ko wax euh, ba ba noppi. yëpp ay toppandoo li ma la wax nii dana findiwaat ñeneen yu dima laaj leneen fekkee am na la mu yaakaaroon peut-être dafa jàppoon ni usman Sonko dina nekk euh, njiitu réew mi est-ce que du yaakaaram peut-être moo moo tas ci digganteem ak borom këram tax ndax tey euh, Sonko ba ñu ko gis nañu déclaration bi mu defoon moom ak euh, aawa Sonko tey ñu ne divorce am na li ko waral mbirum politique ak yaakaarama tas ak yi ni mel yooyu tamit bokk na ci loo xam ne vraiment askan wi jamono jii. dama ne dañ ko ñaanal jàmm li mu daj. Mhm. mu dul ko daj ci Sonko kon nag. nañ ko ñaanal jàmm këram yàgg am jàmm mu nekk ci jàmm njabootam nekk ci jàmm liñ ko def kenn mësu koo gis ci àddina ba politique di politique ba léegi man xam ban politique laa fekkee booboo gënoon a metti SFIO ak BDS jamono jooju boo ko fekkee ndaw laa woon mais am na lu ma ci fekkee as dem na ba dem na dema dema dem xaw yàq sax sama njàng man parce que tey ñu duggoon la ñun ñoo doon bind ci miir yi police di dàqanteeg ñun ñu do ko tuddee dragon noir ñi xam dragon noir xam nañ li may wax. Hmm? c'est important dragon noir seen seen seen jamono. alors ngeen ngeen ñu tàggoo ndax euh, mi ngi may signaler sama temps euh, ki nga xam ne moom mooy Karim Wade wax nañu ne rejoindre na Bassirou Diomaye fay alors papam mi ngi mi ngi ci diwaanu Sénégal euh, tey noo gisee président Abdoulaye Wade euh, ñëwaat fii ci ci réew bu Sénégal war a def votam comme comme ni ñu ko mën a waxee parce que citoyen la boo xamante ni faaw faaw mu voté ñëwam en ce moment yow lan nga jàpp ni moom la moom la moom la mën a euh, appuyer politique en ce moment moom président Abdoulaye Wade. fay bor. moo naroon nu dugal Macky Sall ci naroon dugal Macky Sall ci pax. waaw xam nga ñoom ñaar dañuy fayonte bor alors bi euh, Karim narut a bokk ci kii ndax double nationalité ñu fexe ba mu dem wuti nationalité am ñëw indi ko dugal ko mu xaw a tardé xaw a tardé boobu la doon loolu la doon Macky doon jubbanti ba dugal ñu ci guuta gi nga xam ne ni moo indil tey suba ñu war a voté ji loolu da doon fay bor ba xaw dugg ci guuta léegi nag duggul ci guuta mais indi na guuta guuta googu nag moo des ci boppu suñu mag ji suñu maam ji dégg pour rien que moom mu delloo ko aussi tamit ki bul fàtte ni Sonko ñi fi nekk euh, à l'Assemblée nationale ñu ci bari il a vraiment joué de son poids politique pour que ñoom ñu am ay postes yooyu genn wàll député yëpp moo dem politique la leen kon donc ñoom war nañ koo fay mais nag comme def na loolu góor gi aussi tamit waxoon ko benn kàddu mu respecté ko ne ko soo bëggee politique boo xam ne kii la foog nga génn xam loolu góor gu moo ko digaloon da koy wax sax moom Sonko donc euh, ba mu ci duggee duggee ba lii fekk ko ci aujourd'hui tey su demee ay prison yooyu ak li mu nekkee yëpp daanaka waxu góor googu la doon dégg ba affaire boobu dugal ko ci ci kii njàmbaar gi mu wane yooyu yëpp mu am Pastef ak dogute dem na ba ci bàmmeelu waajuram bu góor ñaan fa ñëw tàggu yaayam yooyu yëpp wax na ko wax nit ñi fan la jaar ba vraiment dafa bàyyil boppam Macky Sall ngir loxoom takk dara xëy na loolu yëpp jot fa yàgg et puis ba muy wax loolu sax dañ ko doon ñaanal pour mu bañ fa yàgg moo ko waral li mu daj yëpp mu daj ko mu waral aussi tamit ñoom ñu amee bor comme ni Macky Sall amee bor ñu am bor boo xam ne dañ ko ko war a fay. donc c'est normal ko góor gi ñëwaat fii moo indi sax partem presque euh, ñëwam fii da ciy profito pour regrouper encore ses partisans parce que ñoom jot nañ c'est de toutes les façons ñi nga xam ne nii ñooy euh, cadre yi jot nañ réunion ba bañ moom moom li mu bëgg ñu def ko parce que ñoom ils n'ont pas compris le geste de Ablaye Wade parce que ñoom dañ ni si day libéraux te ki nga xam ni moom la ñu euh, jaamaar lool dëgg la ni ki mu fi bàyyi euh, donc euh, mel na ni muy xam ne nii daal moom la ko xelam may te loolu Macky joué na ci lu bari alors kon donc bu ñuy kii te libéraux la woon libéral la du moins donc euh, foog ñu ñëw jàppale si ko. président Abdoulaye Wade ginnaaw bi mu ñëwee ñu ne recevoir na ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye fay lan nga jàpp ni moo war a tukkee ci seen waxtaan ñoom ñaar. waaw xam nga boo ñëwee di jàppale nit li ciy tukki du dara lu mooy les tour et les contours dañuy toog non wees na ay secret quoi Ablaye nañ ko may jàmmam la gën a bëgg euh, spéculation bi moo nekk tout autour ak euh, li ma la ko waxee la république de l'interprétation ñu mais foog ñu sos dara loo xam dañ ko fiy teg pour mu jox ndax euh, ku nekk bëgg a wax a commencer par moi encore di la xamante rek mbégte la woon mais balaa ñu laa tàggu euh, candidature euh, ki nga xamante ni moom mooy Amadou Ba moom itam bokk na ci ki nga xam ne moo war a janoo ak yéen moo war a janoo ki nga xam ne moom mooy président Diomaye Amadou Ba candidature am. su ko Macky dellusiwul woon ginnaaw ñëw jàppale ko ba wax son parti na ko les responsables na ñëpp wëlbatu ko dem jàkkaarloo ko. kon terre lay dem directement mais fi mu nekk nii ñu ngi góorgóorlu nit ñaa ngi xaw dellu si mais ngëm-ngëm nga ca war am na ñu si bari ba léegi fa ñu nekkoon nekk foofu lañ nekk ñoom daal xaw ma lu leen Amadou def mais masa loolu suma yoon nekku ci mais parce que ñoom yi neen la parce que ñiix mooy ŋaax pour man donc euh, finalement nañ ko seet ne leen seetaan rek. dafa ñuy mujj. am solo maa ngi lay sant en tout cas bëggoon nañu gën a yaatal ci ci Amadou Ba mais xam naa dañu koy dog du yàgg dara ñu seetiwaat la waxtaan ak yow ginnaaw élection yi euh, ñu ngi lay sant en tout cas mbégte la woon ngir euh, Dakar dalal la encore ci ci Dakar live bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw di santaat sama sëriñu ñëpp laa ko tuddee muy sëñ Touba sëñ Mountakha Mbacké santaale sama wasila ak samay xarit yeeg am di jàmm yi ma am foofu yëpp ci kër googu waaye dugg ci këru diine yëpp tamit fu nekk am na fay xarit mbokk am di jàmm ak yooyu kon ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant mais di gërëm di sant surtout Sénégal yi dama bëgg nga ne ma lan la ma wax la ko dañu am muñukaay seen muñukaay Sénégal gii ma xam léegi léegi léegi muñ bi ëpp na ëpp na lool wootewu ma leen mais daf ma jaxal daal en quelque sorte parce que euh, fii comme Kayor le refus moo nekkoon suñu système nu ñuy seetaanee ñu ñuy maltraité naan doy nañ sëkk ci réew mi ak bëggatuñ fi dara dañ gaawantu rek le mel ni da naan yàlla indil ma le ndax ma jukkee ko c'est mal connaître les Sénégalais defal micro trottoir nga laaj leen ndax amnistie bi luñ ci xam ñëpp ay kon bayi neen noonu rek dafay neex ba mu ëpp waaw dafa mel ni njoos bu ñu leen njoos te duñu fayu duñ leen may sax fuñ ko fayoo moo waral ñu def amnistie boo xam ne bu gaaw la wax ko ñoom santaane ko pour que ñu voté ko ñan ko sante nag ñëpp xam nañ ko assemblée nationale comme ñoom ñooy yore dogukaay bi daal defuñu lu mooy topp la ñu leen laaj rek bu ko defee ñu daaj ci teel génn parce que yu ci bari seetlu wuñ ko vraiment ci dëgg-dëgg euh, waaw foofu nag ñoom jikko sénégalais bi nga xam ne nii moom la xamoon ci sénégalais dañ ko dindi teg ko fole def li xam ni moom lañ leen sant ah mais loolu kay xamuñ ne ba léegi ni loolu ñu def bu nguur gu yees ñëwee fii bu toppul la suñu waa ji ba bu fekkee ni moom moo fekki du ko def mukk waaye bu fekkee ni par exemple <coughs> jomay la foofu la ñuy xam kuy jomaay te ñoom sax wax nañ ko nëbbawuñ ci parce que Sonko moo ko wax carrément euh, mën nañ baale mais il y la justice du ñu topp kenn mais sauf la justice c'est-à-dire ils vont tout laisser à la justice moom mooy atte parce que loolu moom dafa naqari ci xol doomu jàmbur yi nga xam ni nii xamuñu woon sax ne est-ce que bokk nañ ci espoir wu Sénégal est-ce que bu ñu dundoon du yokk martaba Sénégal du indi koom parce que nit ci boppam yàlla daf koo bëgg ba nga xam ni daf koo teral kon kenn ku ci wàññeeku rek naqar lay doon day xoos seen xol vraiment en toute sincérité ñu lay wax ne la baalu leen nga teg ci lan du ma baalu kenn parce que def mu loo xam ne jar naa baalu kooku rëy moo koy def ci nit kon moom ñu julli tabaski ak korité yëpp bu nuyoon teg nit ñi ñi koy wax nan baal ñu àq moom du leen tontu mu ne baal naa leen cest à dafa am yoo xam ne nii vraiment en toute sincérité jël fii tournevis dugal ko fii ci tàmp bi walbati ko pour mu régler machine bi nekk ci bopp bi ah waaw euh, ndaw yi nga xam ñoo fas yéene dem woote ji nañ dem def li leen war te bañ fa indi benn coow euh, xuloo ak xeex wees nañ ko comme ñoom tëdd nañ muñ li nga xam ne nii ñoo ngi leen koy def ñu ne ci jàkk te mënuñu yëngu mënuñu kii nañ bàyyi noonu rek te bàyyi koog yàlla parce que yàlla mooy sotal lépp waaw yàlla na yàlla googu di sotal lépp wallu si waa Sénégal wallu suñu dëkk bi nga xam ni Sénégal lañ ko tuddee te Sénégal li mu tekk buñ ko xamoon am na yu bari duñ ko fi def mais c'est dommage. maa ngi koy sant bu baax di ko remercier tam sant leen jox leen rendez beneen yoon ci beneen daje jaa ngeen jëf.